salaamaaleykum yéen mbooloo mi. kon ñu ngi leen di nuyu sa bëgg sant. sa bëgg sant. ngir topp ci ndigalal yàlla. ngir topp ci ndigalal yàlla. dundal suma yonent bi. dundal suma yonent bi. suñu si nga xam ne. suñu si nga xam ne. ñu ngi ko jëlee woon ci Ibrahima. ñu ngi ko jëlee woon ci Ibrahima. alayhi salaam. alayhi salaam. bàyyi ko ci boromam. bàyyi ko ci boromam. ak sant ko. ak sant ko. ngeen di ko dundal ba tey. ngeen di ko dundal ba tey. ci béréb bii. ci béréb bii. ci weer bii. ci weer bii. ci waxtu bii. ci waxtu bii. maa ngi leen di sant. maa ngi leen di sant. sant ko suñu borom. suñu borom la. ngeen góorgóorlu. ngeen góorgóorlu. bu baax ba yàlla mi leen ko may. bu baax ba yàlla mi leen ko may. jox leen taw bi ngeen di ko def. jox leen taw bi ngeen di ko def. di ko mën. di ko mën. ngeen dolli koo jaamu. di leen jox ngeen di dolli koo jaamu. te dolli koo tuub. te dolli koo tuub. lépp loo xam ne. lépp loo xam ne. wuute woon ko ndigal la. wuute woon ngeen ko ndigal la. tarafat njort ci moom. tarafat njort ci moom. te xam ne ku tuub mu jéggal la. te xam ne ku tuub mu jéggal la. kooka nag. kooka nag. ku tooñ ko. tooñ ko. war nañ njuumte rek. war nañ njuumte rek. kon nag. kon nag. ñaan fas yéene góorgóorlu. ñaan fas yéene ci topp yàlla. ci ci topp yàlla. topp bi nag. topp bi nag. lu nekk sa diggante yàlla. lu nekk sa diggante yàlla la. nga def sa defaat sellal ko. nga def sa defaat sellal ko. topp ko nag ci li mu la la mu digle ak la mu tere ci jaamu yàlla. topp ko nag ci li mu digle ak la mu tere ci jaamu yàlla. topp ko it ci la mu la ci la mu la digal sa diggante say dëkkandoo. topp ko it ci la mu la digal sa diggante say dëkkandoo. ak la mu la digal sa diggante say bopp. ak la mu la digal sa diggante say bopp. ak sa bopp lislaam. ak sa bopp lislaam. ak sa kilifa yàlla. ak sa kilifa yàlla. lu ci nekk na yëg ko ci ne rafet. lu ci nekk na yëg ko ci ne rafet lépp day dellu ci yéen ndax lépp day dellu ci yéen lii di yombal seen seen seen dund du yomb day day yombal seen dund di rafetal seen diine ci àllaaxira di rafetal seen diine ci àllaaxira bu ngeen ko defee ngir yàlla bu ngeen ko defee ngir yàlla yàlla dana leen yombalal lépp yàlla dana leen yombalal lépp te defaral leen lépp te defaral leen lépp ngeen balante ak na ngeen balante ak te baalante ak te baalante ak bu ngeen ko defee yàlla dana leen baal yéen ñëpp bu ngeen ko defee yàlla dana leen baal yéen ñëpp te def ko ngir yàlla te def ko ngir yàlla ñi nga xam ne ñoo fi teew nag ci ñi nga xam ne ñoo fi teew nag ci kilifa yàlla sant yàlla. ndax ñoom. ndax ñoom. maanaam bépp seen baatu bi. ana nañu. mënoon nañ ko teewe baatu. mënoon nañ ko teewe baatu buur. mën nañ ko fee teewe. mën nañ ko fee teewe. ba tey sax moom lañ fi teewe. ba sax sax moom lañ fi teewe. waaye. waaye suñu bokk lañu. suñu bokk lañu. di bokk ñun diine. di bokk ñoo bokk ñun diine. bokk ñoom lislaam. di bokk ñun lislaam. bokk ñoom deret démb ak bëkk démb. bokk ñun it deret démb ak bëkk démb. kon nag. kon nag loolu doy naa sant yàlla. loolu doy naa sant yàlla. daanaka am te du fa am. daanaka am te du fa am. kon nag li mat naa sant. kon nag li mat naa sant. tey ngeen déggoo ñoom nag. tey ngeen déggoo ñoom nag. waaw sant yàlla ak ñoom sant yàlla ci déggoo ak ñoom déggoo ak ñoom ci li ñu bëgg déggoo ak ñoom ci li ñu bëgg ndax li ñu bëgg moo di lu jub rek ndax li ñu bëgg moo di lu jub rek tarafetal ko tarafetal ko ngeen dimbali leen nag ci loolu ngeen dimbali leen nag ci loolu ngeen ci dimbali leen bu ngeen ko dimbali leen yàlla yàlla boole dimbali yàlla naa leen boole dimbali ndax nekk wuñ fi nag ndax nekk wuñ fi nag baatu góor rek baatu góor rek di waa góor di waa góor nekk nañ fi nag nekk nañ fi nag ñu nekk ci lu ko di la ci lu ko ci lu ànd ak yoonu bokk ci tam ànd ak yoonu bokk ci tam nag na rafet na fi gën a rafet nag na rafet na fi gën a rafet xam